Rebonjour à toutes et à tous et c'est reparti pour faire le point de l'actualité à la présentation Pendabachi et ici assure la partie technique à pour le digital. King FM un accident vient de se produire euh, sur l'autoroute autour de la maison de concession d'un véhicule AMG. E un car s'est renversé créant un embouteillage monstre aux alentours. Les premiers secours sur euh, place sont en train d'aider les victimes. La cour d'appel de Dakar a condamné Abdul à un an de prison assortie de sursis dans le procès qu'il opposait à son ex-épouse Aminata Jack. L'ancien premier ministre déclaré coupable d'usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement devra payer une amende de millions de, et 100 millions de dommages et intérêt. le marché Sandaga sera rasé d'ici la première semaine après la Tabaski. Une annonce faite par Abdul Karim Fofana, ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène. Pour rappel, ce grand édifice commercial niché au cœur de Dakar depuis 1935 est dans un état de délabrement très avancé, ce qui peut être en danger pour les occupants. La gendarmerie nationale vient de boucler son enquête sur l'affaire de l'adjudant-major Tamsir Sané, tué le 26 juillet dernier à Kumpentum. Selon la RFM, tous les auteurs présumés de l'attaque auraient avoué leur implication dans le braquage et le meurtre du commandant. Le présumé tireur Idriss alias Paul Bourafet, a reconnu les faits. Il a soutenu face aux enquêteurs avoir utilisé un pistolet automatique. Et pour la musique du jour, écoutons de tout nouveau single de OMG, Wahomondi. du dem ci man sa yoon nekku ci su ma dee woon doo we ndax du man ma lay wettali wanoo ma woon lii ba ñuy tàmbali waxoo ma woon lii mënatuma ndax dama C'est à l'instant waxoo moon un tout nouveau single signé OMG et la version wolof c'est tout de suite. yéen de King FM 99.4. jeul ngeen def ci tënkub xibaari ci radio digital bu ñëk ci Sénégal ñu dooree ko ak benen l'accident bu amaat feli ci autoroute bi watu AMG manam fi ñuy jaayee oto yi feli ci autoroute ba fofé nak ab car mu fa daldi kepp jamono gi ñi àttoog yeen nak ñi nga xamanteni rek ñoy euh, sapeur pompier ñi nga fa ngir xol naka lañu mëna indilé a indilee seen nëmbal ñi nga xamanteni ño fa nekk amaguñ ci nak ay xibaar yu yaatu xeyna dinañ ci dikkat ak yeen ci ci euh, xibaar cour d'appel bu Dakar condamné na qui di Abdoul Mbaye Ben at Kasso ak sursis ci procès bi nga xamanteni mo doxone ci ak Digentem ak ki nekkoon soxnam di Aminata Jack mom mi fi nekkone Elimane jawriñ ñi dañ ko déclaré coupable liñ koy topé usage de faux ak tentative d'escroquerie jugement bi nak dina ca fay lu toll ci 1 million ci amende ak 100 millions dommages ak intérêt marché Sandaga dinañ ko daaneel defaraat ko ginnaaw semaine bi ci top ci buñu ba nopi tabaski muy nak ab déclaration bi nga xamante ni kii di jëwrin bi ñu dénk wàllu urbanisme di Abdou Karim Fofana moo ko rek xamle ñu fàttali ne ni bi lépp marché Sandaga ñi ngi ko defaroon atum 1935 boobu ba léegi nag yàgg na tax ba bâtiment ba ma nga nekk ci état de délabrement maanaam wóoratul sax ngir ñi nga xamante ni ñoo fa nekk am fa seen cantine di fa jaay gendarmerie nationale tënk na enquête bi nga xamante ni moom la ñu ubbi ubbi woon ngir mun a gis ñan ñoo faat kii di commandant ba di Tamsir Sani ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru sulet bi ñu génne naka noonu itam ñi ñu tuumali ñoo ko def nangu nañu ni ñoo ko def rawatina ki nga xamante ni moom mooy Ibrahima Idrissa Sow ñu gën ko xamee ci pël bu rafet moom nag nangu na ni moom moo tiré balu fetal kii di Idrissa Sané ñu jeexale tënkub xibaar yi ak OMG singalam bu ees bu mu tuddee waxoo moon li say wax ne xatul maa ngi dégg ne doo dem ci man sa yoon nekku ci su ma dee woon we ndax du man ma lay wettali wanoo ma woon lii ba ñuy tàmbali waxoo ma woon lii mënatuma ndax dama taa jërë ngeen jëf ci waxoomoon lii single bu yees bu OMG la ñuy daanalee tënk xibaar yi bu 16h30 ci kanam tuuti yamu 19h30 dinañ ñëwaat ak yéen ci yeneen tënkub xibaar ba Badji moo nekkoon ci kàddu gi boo si ci machine bi Adja Gueye ci digital bi ñu bàyyi leen na ngeen woyu animation bi ak Koko Ji en tant que Baba Mal. Rejoignez-nous sur notre Facebook, Twitter, Instagram.